alors euh, euh, euh, fidèles téléspectateurs ñu ngi si actualité Aliou nga war a waxtaanee ay ponk yu am solo bi ci njëkk di visite technique de véhicule au Sénégal mhm. beneen ba di troisième candidature Macky est-il majoritaire troisième bi di institution du pays sont-elles adaptées à no coutumes et mœurs donc ñu commencer rek fa à euh, visite technique euh, de véhicule au Sénégal mu mel ni nag jamono ji ça pose problème parce que gis na jiyee ji nga xamante ne jamono ji mi ngi fiy am di fi amaat au Sénégal des accidents répétitifs yu nga xamante ni euh, mi ngi am boo baag léegi ñuy joxeñ baaraamu tuuma xay na ay ay ay ay ay ay doomu aadama ñu ci mel ni ministère de la de des transport wala ñes chauffeurs yi waaye it visite technique bi jamono ji aussi mu mel ni war nañ ko xoolaat c'est vrai dëgg la dëgg la juste en profiter pour transmettre un grand bonjour à à à tout le monde <laughs> euh, euh, nuyu euh, suma am di jàmm yi nuyu maman Khady Seck maman Khady Ba aussi jàmm ñaajo mhm. Khady Seck la Croze et puis suma xarit bi Tabara Seck depuis Guédiawaye ah, arrêt 64 ci Gueule Tapée maa ngi leen sant leen gërëm c'est une fierté d'être sur ce plateau effectivement tu as bien raison mhm. vraiment sama gars yi ci plateau bi aussi maa leen di sant leen gërëm ah kontaan naa mi ngi noonu hmm? alors sa gars yi noonu la ñu yaataltee sujet bi tey mbirum visite technique mu mel ni nag euh, ça pose problème au Sénégal dafa am benn quotidien bu wax benn benn benn benn wax yu doy waar ci suba affaire bi xaw ma tilté seulement. Hmm. Euh, li mu wax mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy lu doy waar affaire bi sama euh, euh, fait réfléchir. waaye source à la ah. parce que mi ngi xam ne ni que le minard avait une surcharge de quinze personnes. waaw. Euh, la route a tué entre Kaffrine et Louga. Mm -hmm. 64 morts en une semaine. li doy na wax lool. mais mhm. mi ngi xam ne aussi que Mansour Faye. Mhm. Samba Ndiobène Ka et Antoine Diome sur les lieux du drame. xam wow. euh, ne aussi que l'État affrète euh, un hélicoptère pour mhm. éva mhm. évacuer mhm. des blessés mu mel ni nag gis nañ ko ni ki lundi passé ñu ngi doon wax benn accident bu amoon euh, ca Sikilo kilo Sikilo waaw beneen bu nga xamante ni amaat na donc bu ñu euh, cumuler nombre de morts yi man na 64 mais gis nañ aussi ñu indi benn hélicoptère de neuf places pour évacuer ñi nga xamante ni ñoo di blessé dëgg la dë dëgg la dëgg la mais aussi il y a les accès il y de de de contrôle technique de visite technique au Sénégal. Mm-hmm. est-ce que seulement efficace nañu waaw wala déet. je crois qu'il y un gros problème parce que loolu jarul sax euh, euh, journal bi di ci poser wu question parce que c'est euh, vérifiable à l'œil nu am na machine yu bari yoo xam ne dafa manqué ñi ngi wax ni machine bi nekk bi bi nekk Dakar fii pour les taxis. Euh, euh, ça ne marche pas mais euh, am na ay oto yoo xam ne bu fekkee ne dañuy daw en permanence ci tali bi lii lu ñu war a garantir aux Sénégalais ñi fi war a dugg ci biir ci biir ci oto yooyu dañu war a nekk ci ay conditions yu baax et pour cela li ñu war a njëkk a def mooy euh, am ay garantie que ne oto yooyu ñu dugg ay oto yu baax la pourquoi pourquoi ça ne marche pas pourquoi euh, machine yooyu euh, euh, mu mu muy poser un problème ba nga xam ne kenn mënu ci jot ba nga xam ne bu ñii di kon def seen contrôle technique bu ñu ñëwee bu ñu jàkkaarloo ak yi li ñu njëkk def mooy xool nii ci seen i bët xool à l'œil nu et puis jàll ci leneen euh, ñoom selon seen seen gis-gis selon seen appui évidemment day am ay facilité parce que yenn saa yi boo joxee weccet ñu bàyyi la nga jàll wala ñu yombalal yenn yi wala yenn détails yi duñ ko xool et cetera donc est-ce que du loolu mooy indi problème yi surcharge yi nga xam ne aussi dafa am ci ot ci euh, ci oto yi barki dem nee nañu kaa euh, li li li accidenté démb Ndiaga Ndiaye am na si boo xam ne dégg nga maam plus de quinze personnes la def en surcharge mm-hmm. te pourtant surcharge yi démb dafa amoon accident mais tey boo yeewoo suba teel boo xoolaatee tata yi c'est d'une évidence que ni surcharge am na ci tata yooyu bés bu amee problème ci biir autoroute bi autoroute dafa nekk en en hauteur euh, am ay glissières de sécurité bés bu euh, caaf xëmee Euh, incident am euh, ñoo ñu nekk ci biir je suis sûr que ni ñu ci bari du ñu mën a mucc parce que tout simplement ni ñu taxal euh, taxanteloo ci biir oto yi. bu bu contact amee franchement kii bi choc bi dafay metti. je crois que Théo voulait. li gën a grave li mhm. gën a grave sur li ngay wax. Mhm. l'assurance ne prend pas en charge les place debout. muy fépp muy Dakar dem dikk kii muy tataay ñoom ñëpp dañuy taxawal. Ali Kalaj ji nañ ko wax. Mhm. on ne peut pas faire une chose et son contraire. Mhm. l'État ne peut pas moderniser le transport. et cautionner l'illégalité. Oui. Il y a des véhicules qui roulent ici d'agrément de transport. Absolument. ñoom ils le savent. Mhm. ils le savent. ils le savent ñu yorul agrément de transport di yàpp ay clients état bi xam na ko mais ils ferment les yeux. au nom de quoi on ne sait pour pourquoi. ça on voudrait être élucidé. Oui. l'autre raison bi nga xam ne nag moo continuer am ci kirum visite. technique yi. Mhm. ma ne c'est à la base. oto bu ñëwee ñoom xam nañ oto bi lu mu mën a supporter. Mhm. ñoom ñuy di accorder supplément de place ñoom ñoo koy accorder état bi mooy accorder supplément de place. Mhm. waa ji yokk place mu dem circuit jaar gouvernance jaar fépp ñu fay redevance. redevance bi si keesu kan lay dugg. di si ñoom lay dugg est-ce que xaalis boobu ñu ngi koy réinvestir su transport. on ne sait pas. oui donc, tout cas donc tey aujourd'hui je crois que tey depuis Mansour fay bu mu egsee foofu. bu ñu nekkoon loo xam ne état bi nee na dafa bëgg lu sérieux day mën a enquête ñaata nit la ñu dérivé ay visite technique mhm. ak yan condition pour ñu situer d' abord les responsabilités te lool lool du am mhm. lool du am en tout foofu laa doon xaare gars yi moo tax kon Aliou Sow lu mu wax dama koy dëggal mhm. mooy actuellement bu nu ñu moderniser transport di ci boole ay par parloo yow mi yow mi ne njiite yaa war a joxe la bon exemple waaw surtout mu ngi nii mu ngi nii noppi ne cull ci affaire tata yi chauffeur yoo xam ne dañuy toog parce que mënoo dawal te doo nekk xel bu dal duñ la fay fay bu baax ay salaire u cinquante mille boo ñëwee feebar kenn du la faj mhm. yooyu yëpp mu ngi fi mi ngi noonu voilà justement Aliou est-ce que jàpp nga ni Mansour Faye dafa war a démissionner moi je pense que ci situation yi mel nii war naa ko démb waroo sax xaar waroo sax xaar ñu lay wax en temps normal dans une vraie démocratie situation yi bu amee nii même bu fekkee ni ba loolu di xew vous avez extrêmement bien travaillé loolu bu jour bi mu amee da nga war a bàyyi. am nga da nga war a bàyyi c'est parce que métier am na ci réew bi nga xam ne yow yaa porte responsabilité même bu fekkee ni responsabilité morale la mun na bañ a nekk matériel. Mhm. mais moralement yow da nga war a bàyyi éliminer définitivement surtout que quelqu'un comme comme comme comme comme Mansour Faye euh, bi nga xam ne euh, wax dëgg yàlla il a une position moom li ma doon wax démb il position. extrêmement stratégique il tient pratiquement le tiers du budget du pays Mansour Faye ci situation yi demee nii. Mhm. Abdoulaye Diouf Sarr nee naa leen bi ñu koy dax mhm. bi ñu koy dàq nekkul woon Sénégal. bi problème amee mi ngi woon en Suisse. Mhm. pourtant ñëpp xam nañ li ma xalaat ci bambula bi xew ci ministère de la santé. yàgg naa ko fi wax mais ni ñu ko dàqee ci onze nit onze bébés calcinés. eh ben je crois que ni Mansour moom waru woon xaar est-ce que sax des fois du gêner. goro ji parce que wax dëgg yàlla toogaayam du woon foofu dafa waroon dem bàyyi même buy dellu soit plus tard sax dem xeex politiquement parce que am na ci droit mais nii ci situation bi nii dafa waroon démissionner. waaw mais comme moom bàyyiwul aussi euh, est-ce que waruñu woon a raxas loxoom ci ndab li. mais euh, kooku loolu loolu loolu loolu kilifa gi moo ko waroon a def. ki nga xam ne moom moo ko fa teg par décret. Mm. waaye kooku bu ko deful aussi moom moo xam lan moo tax defu ko. et benn raison boo Euh, euh, euh, question de parallélisme rek la. diw am na fi problème bu gën a tuuti. ñu ne ko ust moom wax dëgg yàlla Mansour waruñu ko waroon bàyyi. Mhm. wala moom moo waroon dem yoonam. mais boo yaa ngi doon wax sànq aussi wax bu am solo ci wàllum chauffeur yi ak borom tata mhm. mais borom tata yi cinquante mille la ñuy fay xale mais xale yi amuñu amuñu IPRES. xale yi kenn du leen cotiser euh, prise en amuñu prise en charge médicale xale yi dañuy stressé xale yi dañ leen di wax il faut nga gaaw daw ñëwaat dañuy xëccoo il faut nga am le maximum sinon dañ lay dàq xale yi kuñ ci dàq dootoo amati sa fukki junni yooyu amaana as tuut te nga ci góorgóorlu yooyu rek dañ ci agrippé wu ba lépp lu leen seen patron wax dañ koy def te chauffeur yooyu tey ji ni une grande partie ñoom ñoo ne ñoom góor a xuma. te jigéen bu ñu ñu ñu ñu remercier la dootoo liggéey. ñu ñu remplacer la remplacer soo loolu loolu ani ani inspection du travail ani xam nga yooyu yooyu la war a lijjanti mais surtout man vraiment man tata xoolal si suba encore xaw ma lan la xaw ma même tata bi laay gis xaw ma lan xaw ma même heure bi la. Ah. mais tata boobu toujours moteur bi da koy ubbi. day ubbi capot bi. Euh, euh, noonu lay dawee ci biir moteur bi am na courant am na essence wala gasoil am na jaxasoo bi noonu noonu ay bi yu kenn xamul yooyu dañuy taxal te nii ci embouteillage yi ay oto nekk seen kaw kanam oto bi nekk ci ginnaawam mi ngi dégager échappement am nii la ñu def amul cinq centimètres hmm. man loolu xaw ma bés bu ñaari dajalee qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait se passer ah, te pourtant dañ koy romb noonu te pourtant bu explosé woon léegi hmm. ñu ne léegi dañuy vérifier moteuru tataay waaw léegi léegi léegi léegi léegi parce que loolu di jege noonu ma gis ko noonu maa ngi taxaw di ko gis mm-hmm. et chaque jour nga gis bu mel noonu donc je crois que nii li ñu war a def mooy euh, euh, il faut que il faut que gars yi job mm-hmm. et je pense que nii Euh, liggéey du ay jël ay décision ni 22 mesures ça non da ngay anticiper ci mbir mi. Mm-hmm. liggéey ko xam lan moo xew ci réew mi li ma leen di wax ne mi ngi am tataay est-ce gis ngeen yéen autorités yi nii sacrifier ay Sénégalais yoo xam ne ñoo nekk ci biir fay seen paas. te wax na ko léegi. ñi di taxaw kenn du leen assuré. kenn yi accidenté. Mm-hmm. ñi accident ñi dee ci biir euh, oto yooyu démb démb yoonu sàkkal bi xaw ma fan. Mm-hmm. gis nga ñooñu xam fu ñuy mujjee. kenn du leen jox dara ils vont finir seen waajur yi ñi dee amoon jabar am ay doom ñoo ñu c'est foutu pour eux mhm. ku si amoon ay doom yi ndaw wala jabar soxna si sànku na et c'est ça qui est terrible parce que xam nga tax ndax assurance mënoo fexe ba ñu fay la donc société d'assurance yi aussi mhm. il faut qu'on en la parce que ils récupèrent beaucoup d'argent mhm. dañuy récupérer xaalis bu bari te du ñu delloo bu fekkee ni problème dafa am wala ay accident ci yi du ñu remboursé bu doy ils sont toujours dans la triche parce que ils gagnent beaucoup mm-hmm. d'argent ces sociétés d'assurance mm-hmm. et ça il faut revoir ça mais loolu loolu état la quoi loolu réew la réew mooy lijjanti loolu accidenté day day dee ku dee yaa ñàkk en tout cas ku dee yaa perte en réalité on n'est pas en sécurité dans ce pays là mm-hmm. parce que euh, je suis obligé de donner des exemples da ngay perte oto bu ndaw nii oto oto benn accident benn xale mbëkkal ak scooter ñu xool oto bi ñu ne non oto bi mënatul daw dañ lay rembourser sa xaalis ma loolu dal na ma man France. ok ne leen xoolal valeur oto bi. Mm-hmm. xam nga ah dafa garaaw quoi. Mm-hmm. parce que des fois boo xalaatee danga naan mais man ces gens ñoom du ñu julli quoi gars du ñu julli la plupart. oui mais ñun xanaa ñun du ñu ay jullit parce que parce que li ma lay wax nii. Mm-hmm. lu ma dal la quoi. oui scooter moo la mbëkk ñu xool affaire bi xool état oto bi ne non li jarul defar parce que wóorul bu ñu ko defaree ñu jël oto boobu. waaw boo saagalee sa oto boobu ñëw na indi nañ ko Sénégal eh, indi wala ñu indi ko Zaïre wala wala beneen. Mm. léegi yow ñu ñoom ñu xool évaluer valeur oto bi ci Argus ñëw delloo la xaalis boobu. nga dem jëndiwaat beneen oto yaa xam ndax même prix bi ngay jënde wala da nga yokk dara wala yaa xam mais ñun lu tax lu ñu def loolu société d'assurance tey ku amul assurance alkaati rendi la mais assurance bi amul benn njëriñ mm-hmm. assurance yi ngay jënd ni 6 mois 7 mois ni man ñaata lañ ma ameel xaalis fii nii ay nit mbëkk ma ngay mm-hmm. ay taxi nii dama mujjee gedd parce que xam lu tax parce que temps bi ngay def pour ñu rembourser la sa xaalis ak a wax ci réew yooyu yëpp façon ngay yoo xam billaay li ñu war a waxoon ñu ko. waaye on est dans un pays où. Mm-hmm. en en réalité. jawbuñu quoi et puis mënuñu mënuñu quoi dañu mënul dafa am yoo xam ne dañ ko war a organiser te ci juróom benn fukki at ba léegi mënuñu lijjanti lool ça veut dire que si ñun la quoi et pourtant ce sont des gens qui sont en costard en cravate en machin en auto ay ay bureau am ay bagages am mobilier am am clim mais pourtant du ñu xalaat war a def dara pour avancer loo réew mi mm-hmm. tout le temps da ngay toog bana benn période temps bi jeex nga dem mais booy dem liggéeyoo fi dara en réalité yóbbu nga alal bu dul jeex. ay moña c'est fini. mutuelle liggéey na wala liggéeyoo mutuelle séddoo xaalis mandaawam jeex na wala jeexul day jeex wala du jeex. kan moo war a décider euh, conseil constitutionnel wala le peuple jamono ji ngay posé wu la question est-ce que euh, le président Sall est-il majoritaire troisième candidature. majoritaire surtout au sein de Benno. Benno moo tax may wax parce que Benno ci biir Benno si euh, Benno. Bokk Yaakaar est-ce que biir Benno Bokk Yaakaar. Euh, am Macky Sall am na fa majorité moom. parce que y a beaucoup de gens. qui pensent que ni je pense ay ñoom mi mi Touré. je pense ay le gars qui sa qui habite euh, euh, fële côté côté Gounass non Canada. Canada côté Canada y a beaucoup de gens yoo xam ne d' accord ñu ci troisième candidature u Macky Sall. mais ñi xataraayu est que du poste xam nga question boobu la ñuy posé tel que <laughs> peut être Abdoulaye Wilane. Abdoulaye Wilane la xam nga yooyu noonu doo xam. mais am na je suis sûr que ni am na si ñoo xam ne ñu ngi ci biir xëy na amuñu voix bo xam ne voix wu voix wu Abdoulaye Wilane la ñu ngi ci biir doon ay des gens peut-être yoo xam ne ils ne sont pas d'accord avec la candidature de ce monsieur du président de la République mm. et pourquoi est-ce que vous pensez que ni on pourrait éventuellement penser que ni Macky Sall ne serait pas majoritaire à l'intérieur même de son propre camp de sa propre coalition ce sont des questions yoo xam ne. loolu est-ce que du du naxante ak sénégalais yi c'est parce que Mimi Touré bi ngay wax nii. bi mu nekkee ak bi mu retrouvé ak Macky war a dem ci élection yi boo ko la dina naan man li ma ci waroon wax wax naa ko ci jeex na. Mhm. mais en réalité il a elle a raison. Oh, mais léegi lu tax bu bu buñ ko assemblée nationale après mu dellu naan c'est parce que j'ai dit que j'étais pas te li mu si waxoon wax na ko ba pare. bu ko bu ñu nekkee position confortable boo waxee ñu ne la ah man li ma ci waroon wax wax naa ko. waaye léegi lan nga mu wax moment boobu mu nekkee ci position confortable. mais répéter ko pourquoi faire. lu tax léegi mu koy répéter non puisque tout le le sait non non li ma la waxoon. non non parce que foofu am na répétition sax puisque li mu tontu boobu répété répété na. puisque il suffit juste que mu nee non léegi même boo ko laajul. bu commencé argumenter da lay naan c'est parce que d'accord ma troisième mandat moo tax li xew. assemblée xew mais peut-être que moom moment bi muy nekkee moom mi ngi espérer ne waa ji. un moment ou un autre. du du ah ouais mais mu non doo ko nekk doo ko est-ce que du intérêt non doo ko nekk di acharné wu tout le temps à la personne yow kay li nga war a toog mooy xaar bu xam ndax un jour dina wax leneen lu mu waxoon tel que li Khoudoss wax dama ciy d'accord mhm. puisque bu fekkante ne mhm. euh, euh, euh, Mimi Touré mhm. est-ce que bu nekkoon présidente assemblée nationale tey dinañu xam ndax bañ na wala bëgg na troisième mandat est-ce que dinañ ko xam c'est la question est-ce que dina nekk président assemblée nationale est-ce que pare luñ ko dóor mu daanu bu yàgg te xamu ko moom mën na nekk est-ce parce que te xel am na des fois ngay liggéey nit coono kenn du wax da ngeen toog rek ku nekk xam na sa bopp lu mën a nekk la waaye dama ne mbir mi mbir mi <laughs> loo war a bañ tey bañ ko suba te mu dëggu ci yow bañ ko tey bañ ko suba mu dëggu ci yow mais su fekkee da koy bañ tey jii mu am ay demi mesures yoo ci jël suba nga bëgg cee jël ay mesures ferme parce que dañ laa xañ li nga poste bi nga bëggoon mhm. tamit nit ñi dañuy euh, am mais est-ce que dafa jël demi mesure est yooyu moo ko àndil tey jii position bi mu nekkee bi mu nekkee le mu bañ a nekk président assemblée mën na nekk hmm. mën na nekk mais xam nga wóoruñu ñun ñun bi bi Mimi Touré bi ñu nee ko doo nekk président assemblée nationale la ñu a xam ndax dafa bañ wala dafa bëgg. waaw mais bañ ko dee bañ ko jëlee. ci bopp conseil économique social et environnemental gis nañ ay ay interview yu mu def. Mm-hmm. elle a été claire ci mbirum troisième candidature aussi. ba tey waa mën na nekk. moom moo je moi je pense que moi je na mais je pense que ni euh, na peut-être ki mu doon liggéeyal dafa doon euh, euh, comment dire naxtaan naxtaan ak moom. Mm. ku nekk kii xam na kii li muy xalaat kii xam na lu moromam lu muy xalaat. mais ñu ne léegi nañu dem ñuy dem di dem di dem ñu dem ba xool ni wóorul ñu koy teg ci position boobu parce que kii euh, euh, rentré wul véritablement dans les rangs. Hmm. ñu dem ba. ñu war a jël benn décision bu capitale mooy présidence assemblée nationale dafa doy waar yaay deuxième personnalité bi ñu toog di xalaat na mais kii est-ce que bu ñu ko fi tegee non xaar ñu jël koo xam ne bu ñu ko fi tegee luñ ko wax lay def. Mm-hmm. est-ce que du loolu moo tax ñu. est-ce que du loolu moo tax jëluñu ko en dernier ressort. Mm-hmm. parce que xam nañ ndaw si lu muy ah, ah, <laughs> tam beneen beneen la bu dul woon. <laughs> ma ne doon loolu donc Ba du nekk premier ministre. non ah, ah est-ce ko déglu leen wax. Mm-hmm. parce que man du ma waxantu mais c'est que li may wax aussi il faut que gars di koy di koy génnewaat Aliou Sow moo ko wax. d'accord que bu du lool parce que gars yi def d'habitude nag damay ma dañ ma ne dañ a ne mais na ko fi wax est que est-ce que Mimi Touré euh, problème ak ak que Amadou Ba dina nekk premier ministre en tout cas léegi waxuñu lan politique est-ce que dégg ngeen bu baax li ma leen wax politique moo jamais n'existe eh, eh. que mën na Mimi Touré mënoon nañ ko dog dog di poste premier ministre mm. nu mu demee assemblée bi ñu xoo mu xëy ba veille bi Macky Sall changé donné mi ne ko Amadou Ba kaay nekk PM. Hmm. léegi lan mooy liquidation politique am na. mais est-ce que dégg ngeen sama question bi bu baax parce que mu ngeen gi ko jàpp léegi comme ñu dama leen laaj ma ne est-ce que est-ce que Mimi Touré laa wax. Mhm. bu nekkul woon bu nekkoon bu euh, bu bu bu bu bu juboo woon ak Macky Sall. Hmm. est-ce bu amul woon problème nii ak Macky Sall. Amadou Ba dina nekk premier ministre. bon c'est vrai que dafa dafa dafa permettre ñu ñu xoolaat calcul yi. réajuster réajuster. Mhm. mais est-ce que rébellion bi am ci Benno Bokk Yaakaar comme ni nga ko waxee nii. Mhm. Euh, ban conséquence lay am ci présidentielle 2024. oui waxtu wi xoj nañu. xulóos est-ce que est-ce est-ce que est-ce que Mimi Touré bu juboo woon ak Marième dina nekk euh, du nekk président de assemblée nationale. <laughs> xam nga dama leen di wax aussi te da ngeen may di il faut ngeen di may <laughs> déglu nag. Mhm. wala question bi déggaat ngeen bi ma leen laaj. Ah est-ce que Mimi bu juboo woon dëgg. Mm-hmm. ak Mariam Faye Sall. Mm-hmm. Mimi di est-ce que dina nekk président assemblée nationale waaw wala déet man gëm naa ni waaw. kon jubóowu ñoom ñaar Mariam Faye Sall ak. Mimi ah, waaw leer na kay li wax man lu la xaw la may wax nii te ma wax nii. kam kon daal ku jubóog Mariam toog. ñi jubóowul ak Mariam dañuy dem. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokki mareem ku ci mel ni Mansour ak ñeneen ak toog dañuy seer ah non mais loolu lay loolu oh, Fabrice Guéma nee na damay laaj dong damay laaj rek damay laaj dong ah, man dama laa tontu <laughs> en tout cas euh, on voit que dañuy wax que euh, suñu tata dafa am quota wu ministre euh, mais monsieur kii Moussa ko wax ne mbay ministre ministre Fatick boobu ministre Fatick boobu Moussa ko wax tata amul kiiwu ministre de lan la am jigéenu réew mi yaayi réew mi ah, mais tata mooy tata mooy